di leen wax ni ñu ngi fi tey ci turu son excellence ma monsieur le président Macky Sall di wutu sunu naataango di ministre Serigne Mbaye Thiam ministre de l'eau et de l'assainissement pour def li nga xam ne moom mooy lancement travaux yi nga xam ne mooy yeesal collecteur bi nga xam ne moom lañu tuddee collecteur Hann Fann waaye yeesal lu toll ni cent kilomètres de réseau secondaire et de réseau euh, tertiaire ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci biir Ndakaaru waaye euh, toppatoo li nga xam ne profité walla ci euh, amaale matériel bi nga xam ne walla ay équipement dina faciliter lépp loo xam ne mooy exploitation réseau bi projet boobu nag mu ngi war a coûter lu toll nii 82 milliards 860 euh, 82,860 milliards de francs fa dama bëggoon remercier autorité administrative yi ak autorité territoriale yi jaajëfal bu baax le directeur général bu ONAS ci organisation parfaite bi nga xam ne ak population de la région de de, de, de Dakar ci organisation bi ak seen teewaay ak accueil bi nga xam ne moom la ñu jagleel damay fàttali nii euh, yeesal li nga xam ne moom mooy collecteur aan Fann nekk na ci priorité yi nga xam ne son excellence monsieur le président de la république du jóg di fàttali priorité boobu ci wàllu yeesal collecteur boobu parce que collecteur boobu nekk na collecteur bu yàgg-yàgg-yàgg bu weesu lu ëpp près de soixante-dix ans bi ñu ko tabaxee ba léegi te collecteur boobu mun na indi ay jafe-jafe ci population yi saa su nekk parce que gis nañ ne am na ci ay bërëb yu bëri yu commencé am ay affaissement mais li ci gën a doy waar mooy identifier nañ lu toll ni téeméer ak juróom-ñeent édifice yoo xam ne dañ ko tabax ci kaw collecteur bi euh, lu demee ni quatre vingt yoo xam ne ay bâtiment la ay kër. yoo xam ne ay nit ñoo fa dëkk walla ay kër yu nga xam ne yoo xam ne ay commerce lañ fay def gis nañ ne lu toll ni ñaari mosquée yoo xam ne ñu ngi ko tabax ci kaw correcteur bi gis nañ ne lu toll ni ñaari euh, benn école ak euh, li nga xam ne moom mooy bâtiment euh, faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop bokk na ci li nga xam ne dañ ko tabax ci kaw correcteur bi correcteur bi nag comme ni ma ko waxee sànq nekk na collecteur bu yàgg lu weesu soixante-dix ans bi ñu ko tabaxee ba léegi euh, situation des euh, vétus des vétusté bi mooy yàqu-yàqu yi commencé am euh, jur na li nga xam ne moom lañuy ñuy constaté di wax ne am na benn gaz bu tudd hydrogène sulfuré mooy gaz bi nga xam ne hydrogène ak beneen gaz moo ñooy jaxasoo Euh, mu nekk euh, mu jur ay tooke yu doy waar xam ne mun na indil gàllankoor population yi mu nekk également gaz boo xam ne bu yomb tàkk la donc lu mun a jur ay tàkk-tàkk saa su ne waaye mu nekk également gaz boo xam ne xet bi boo ko noyee dafay indi ay jafe-jafe yu bëri gis nañ ne xale yi fi jaar sànq def sketch ñu ngi ñaxtu ci xel bu bon bi nga xam ne moom la population yi di noyyi guddi ak di wax ne président de la république dafa joxe ay tegtal yu leer pour que ñu toppatoo projet bi nga xam ne bokk na ci projet yu am solo yi nga xam ne bàyyi na ko xel bu baax baax muy yeesal collecteur Hann Fann ci délai boo xam ne du weesu début d'année 2024 bu soobee yàlla Euh, gis nañ ne nag liggéey boo sumb mu nekk liggéey bu am solo liggéey euh, bu toll nii war ñu war ko amalee ci dëkkuwaay ci dans les zones urbaines euh, du ñàkk mu jur ay gàllankoor ci wàllu dem dikk du war du ñàkk mu jur ay gàllankoor ci yeneen i fànn waaye ñu ngi ñaan population yi ñu dawal compréhension bi parce que collecteur bi nekk na loo xam ne mënuñu ko ñàkk def parce que ñàkk koo def mooy bàyyi population yi ci euh, situation yoo xam ne mun na mun na mun na indi ay jafe ay jafe-jafe saa su nekk maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp euh, di sant partenaires yi nga xam ne ñoom ñoo ñu gunge euh, muy la la société général muy société muy groupement énergie eneen Chine aussi bi nga xam ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoom lañu tànn pour euh, étudier ak liggéey bi ñoo ngi leen di jaajëfal di leen wax ne euh, président de la république son excellence Macky Sall bàyyi na xel bu baax li nga xam ne mooy liggéey bi pour que ñu daal koy def H24 guddi ak bëccëg ñu taxaw ci pour que liggéey boobu mun a gën a yem parce que Dakar mu ngi màgg gis nañ ne bi ñu tabaxee connecteur bi ba léegi depuis soixante-dix ans. Dakar fi mu nekkoon ak fu mu toll léegi ci wàllu dëkkuwaay ci wàllu population euh, yaakaar naa ni weesu na lu bare bare bare bare dimensionnement bi nga xam ne euh, defoon nañ ko si njëlbeen maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullah. bi ci directive président de la république euh, donc Serigne Mbaye Thiam bi nga xam ni monsieur le ministre de de l' moo ko wuutu foofu na donc pour dire tout simplement que nekk na loo xam ni lu am solo la euh, di wax na rek projet bi nekk na projet bu ñu wax euh, projet renouvellement collecteur Hann Fann collecteur bi nga xam ni mu ngi toll ci huit kilomètres mais am aussi euh, li nga xam ni mooy réseau secondaire ak tertiaire dañ ko war a renouveler sur cent kilomètres di wax na rek réseau yooyu jël na en compte préoccupation huit communes donc yi nga xam ni mooy gérer moom mooy gérer li nga xam ni mooy ndoxu ndoxu took Euh, di wax ni aussi projet bi jël na en compte li nga xam ni mooy matériel euh, donc dispositif de euh, donc d'exploitation bi nga xam ni ONAS soxla woon na ko di wax ni rek aussi problème inondation yi dana am équipement yoo xam ni projet bi dana ko dana ko dana ko jox donc di wax ni rek nekk na loo xam ni urgence la woon nekk na un danger public parce que affaissement yi depuis plusieurs années da doon continuer di bari te di wax ni rek waxuma vraiment insécurité bi mais di wax ne aussi li ñu doon euh, euh, dépensé ci vraiment ci ci fonds pour réparer dafa nekk loo xam ne aussi dañ doon wax ne pertement la donc projet bi nekk na loo xam ne vraiment à l'aide seulement de ce groupement là groupement euh, Afrique ak Enan Chine ak accompagné par la banque Société Générale donc mu permettre ñu vraiment jël en charge vraiment préoccupation bi nga xam ni mooy préoccupation population mais préoccupation bi nga xam ni mooy aussi bu chef de l'État bi nga xam ni vraiment depuis donc ñu ngi vraiment nekk ci projet bi heureusement yàlla sotal na ko ba travaux yi war na war na war na commencé tey et d'ici quatre mois donc ñu mën a finaliser carrément projet waaw normalement en fait projet dafa am nu muy nu muy doxee donc euh, jël nañ jumtukaay yëpp parce que waxuma projet bi ci boppam rek mais maître d'ouvrage bi muy ONAS jël na ay jumtuwaay yëpp euh, les préfets le gouverneur ci kaw ak les sous-préfets euh, les maires ñoom ñëpp dañ ci associé ba nga xam ni lépp lu ñu def rek dañu nekk ñoom mu nekk loo xam ni ah euh, àndandoo la euh, pour lépp loo xam ne war na andi ay ay contraintes euh, mu bokk ci li nga xam mooy déplacement nit ñi déplacement oto yi yooyu yëpp dañ ko jël en compte pour réalisation mën a mën a aw yoon. donc di wax ni rek li nga xam ni surtout moom la ñu war a orienté mooy déviation yi la ñu war a jël de dévoiement pour éviter déplacement yu bëri yi nga xam ni déjà nekk nañ ci kaw collecteur bi. Euh, donc euh, su ñu avait su mën a def déviation yi mën a wàññi ou bien éviter carrément li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy empêtement empêtement bi donc euh, di wax ni rek dalal ñi nga xam ni ñoo nekk ci kaw collecteur bi di leen wax ni rek dañu def tout pour que ñi ñu war déménager mu nekk ñoo xam ni ñu néew lay doon donc loolu suñ ko defee rek je crois que dana préserver li nga xam ne mooy impasse yi yoroon xaar ci li nga xam ne moom la ñu war a fay ci ci borom projet bi di vraiment xel ñëpp di gërëm ñëpp euh, population bi aussi di wax na rek seen projet la donc impliqué wu ci euh, dañu mettre en place des comité des comités vraiment donc de vigilance des comités de gestion avec les collectivités territoriales avec les populations les associations communautaires de base pour que mu nekk vraiment projet inclusif participatif pour que évidemment population bi gis seen bopp donc euh, finalité bi mooy d'ici quatre mois vraiment projet bi mën a mën a mën a yemb au bénéfice tout simplement des populations pour vraiment un assainissement euh, durable et pour un meilleur cadre de vie de nos populations. Je...